tay dama ñëwoon fi ci lycée yi Limamoulaye gannaaw bu ma lycée de la Fosse ci suba ak euh, école privée IPG xam ngeen ni bac technique bi baccalauréat technique bi tay la euh ma gis ci nak euh, wax deug yalla fenn amu ci jafé jafé examen bi door na ci waxtum ak ci ñëpp daanaka taux d'absence yi élèves yi manqué bariwul. Euh, ñu respecter protocole sanitaire bi loolu nak ma bëggoon ci féliciter directeur office du bac ak équipe am yépp ñi nga xam ni jël nañ matuwaay yi ak directeur de centre yi président de jury yi jël nañ matuwaay yi pour que xale yi def seen baccalauréat ci ci jam. waaw ren nag xam ngeen ni at bu spécial parce que mbas mi tax na.

Euh, euh, les autorités administratives, autorités, les collectivités territoriales, je me sant aussi au passage, les syndicats, les enseignants, les parents d'élèves, nous dougal ci sen loxo pour que nous mëna reprendre jang bi ba tay yalla soutenir ñu ba ñu exci ci examen baccalauréat technique bi lolu nak ni ma ko waxé légui président jury yi bu doon ñetti xaaj la daw na ñaar yi mu des benn bi nga xam ni euh, solo examen yi donc pour le moment lépp mi ngi jaar ci jàmm wax naa leen ñu gën redoubler de vigilance

loolu nak andul ak mbas mi loolu tax directeur office du BAC makoy féliciter au passage mu jël ci matuwaay que ne ren dinañ yónnee SMS parce que il faut ñu and ak suñu modernité mu ne dañ SMS xalé yi pour wax leen ndax am nga wala amulo wala deuxième tour ngay def. di wax na aussi gannaaw loolu dina utiliser ay radio communautaire pour mën a jox résultat yi gannaaw loolu dina soog taf résultat yi pour éviter loolu yëpp euh, xalé yi dajaloo japp na né li mo wax rek. mbas mi amul ludul ay inconvénients am na aussi avantage yoo xam ni te loolu jàpp naa ne mesures yu ñu mën a war a la félicité de directeur office yu BAC ñaanal xale yi jàmm ñoom ñëpp yàlla may leen te mu jig leen